def ci lu toll nii vingt millions xam nañ ni ci Touba am na lu toll nii cent vingt sept mille taalibe nga xam ne war nañu enrôler ci mutuelle yi moom bi ñu dajee ak moom pour la première fois ci teew mi teew mu joxe vingt millions naan nañ ci jàpp depuis boobu nag ñu ngi enrôler ci mutuel de santé yi euh, yaakaaroon naa ni baaxoon na tey su ñu fi ñëwee ñu wax ko fan lañ ciy toll euh, am ci continuer di am ndigalam ci loolu mu def ci ñaanam. loolu moo taxoon ñu ñu ñëw ànd ak euh, sëriñ si nga xam ni ñu mel ni sëriñ Abdoul Aziz Madialis nga xam ni moom moo géolocalisé géoréférencé daara yëpp ci Touba ak yeneen sëriñ yi nga xam ni ñoom ñooy jàngal xale yi ñu teew bi ñu ñëwee nag sëñ bi bëgg ci lool euh, ñaanal ñu ci jox ñu autorisation nañ ci wey ñu yaakaar ni euh, war nañ mën a continuer continuer ci comme ñu ngi ci campagne bi nga xam ne dañ bëgg a enrôler xale yi ak jigéen ñi un million war nañ ko mën a continuer ci Touba comme ni koy defee ci yeneen dëkk yi loolu nag ñu ngi ciy taxaw avant campagne bi di jeex mun na am ñu ñëw foofu def une cérémonie d'enrôlement mais comme ndongo daar yi comme ni ngeen ko gisee dañu bëri yaakaar nañ ni fii nii ak sëriñ ci war na am représentant am ci mutuel yi bi nga xam ni mooy bëtam di ko xolal euh, war nañ sëriñ si nga xam ne aussi ñooy jàngal xale yi ñoom it war nañ teew moo tax ñu jàpp war nañ mun a yaatal euh, CAI, nga xamni mutuelle de santé ñoko yott mais aussi war nañ am comité de pilotage bi nga xamni agence baa ci représentant sëñ baa ci si sëñ si jàngal xale yaa ngi ci bir pour que ñuy saytu du ñu duggal leen pour que à partir du 1er mars xali yi mëna commencer euh jël jël seen traitement lolu lu am solo la yaakaar aussi danañ mën a yaatal ba ñeneen ñi nga xamni ñu ngi bitim rew té mbirum talibé yi soxal leen chaque fois suñu dajé ak ñom ñu naan daara yi ñoo leen intéressé ñu may leen yoon bi nga xam ne tax ñu mën a aarale comme ko bëggee am nañ ci yaakaar bu baax a baax. di sant xanaa eh, Cheikh Mouhamadou muntaha Mbacké di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi lool te may ko wér eh, ci taxawaay yu am solo yu mu yàgg am ci lislaam am ko ci yoonu murit eh, tey nag ni mu ko daan defee rek dafa defati na ko defati jaloore jaloore ji mooy bi li ñuy tuddee CMU amee nga xam ni état Sénégal moo ko taxawal ñu ko ci sant bu baax ngir yombal paj mi ko yëgee. yëg ni tamit ndongo daara yi yitte woon nañ ko paj moomu ci la yëkkati lu mat ñaar fukki million jox ko sëriñu daara yi ngir ñu dugal ko ci paj moomu kon loolu jëf ju ama am solo la joo xam ni eh, dañoo jàpp ni képp ku nekk képp ku yor daara rek wala ku mën daara war na ko cee roy kon loolu Cheikh Mountakha kon jëfam jooju ñu ko ci sant bu baax eh, di sant it eh, nguur gi nga xam ne ñoom ñoo ci seen pësteef la li ñuy wax CMU amee ndax ku ne xam na ni paj moom dafa jafe fii ci Sénégal ndax ñu bari seen loxo jotu seen ginnaaw Eh, ñu fexé ba ku joxé 3500 ci at mi ñu mëna laa fajj wàññil lako ñu dem ba ci biir gis ni tamit donc eh, élève yi ñomit dañ ko koo wo ñu wàññil leen ko def ko ñaat témir eh, ñu nit ñu gisoon ni loolu ñuy defal élève yi ndongo daari ñoko gëna ko sax yello ndax ñom bu ñuy wax ku ku ku ñu wara dimbali yaaka na ñoo ci wara jitu biñ ko sakko ci nguur gi nguur gi tamit def ci pëstéef ba fim nek ni loolu lu ñuy tambali la fim nek ni moy kon inshallah nañu japp ni ci wër wi ñu jëm bép ndongo daara bo xamni rek Euh, gis nañu war nañ koo jàppale ci faj rek mën nañ koo dugal ci ñaar téeméer nga xam ne loolu kon muy vraiment jéego bu am solo boo xam ñu ngi ci sant directeur général CIO mi nga xam ne ci pëstéefam loolu amee ak nguuru euh, Sénégal gi yëpp te loolu li ko waxee dafa dañoo jàpp ne day réparer maanaam euh, ku ma am ndey ku ma amul ndey bu fi amoon kon loolu bokk na ci bokk li nga xam ne mën na koo réparer ndax jafe yi ñuy wax ci daara lu baree bari ko li ko waral bokk na ci ñi leen war a féete féet ñoo leen féetewul fenn kon ci sant yàlla di sant it sëriñ daara yi ndax ginnaaw yàlla ci seen pëstéef ak seen ubbeeku ci la ñu àndee ba fexe ba maanaam nat daara yi am Touba muy muy li ñuy wax recensement wala cartographie géolocalisée boo xam ne may nañu ñu am ci ci biir Touba rek lu mat junniy daara ak juróomi téeméer lu teg toll ci téeméeri junneeg ñaar fukk yu teg yoo xam ne ay ndongoy daara yoo xam ni sëñ Mountakha am na yéene ñu dugal leen ci CMU bi waaye nag ñu mu ciy woo wala ñu ciy woo mbokki taalibe yeeg jullit ñëpp rek ak képp ku bëgg lu baax rek ni ko defee Touba ñu yaatal ko def ko Poroxaan def ko fépp fuy dëkku diina wala sax fépp ci Sénégal fépp fu am daara rek ndax sëñ Muntaxa moom l'islam la fi nekkal kon te daara moom mooy base de ndax alxuraan mooy mooy mooy islam kon ku ci jëf na nga jàpp ne yow yaa ngi jëfal alxuraan yaa ngi jëfal l'islam asalaamaaleykum wa rahmatullah